leen jël galaas yaa ngi nii ñu ngi fii ci pël gi ci sancaan yi jàmbaar yaa ngi nii ñu ngi nii daal ci liggéey bi jàmbaar yaa ngi nii ci liggéey bi oh oh lii dëgg la taw tawfeex dëgg la xoolal fi ñëw fiil guy daw sax daanaka doo ko gis fi la ñuy ñëw di joxe affaire yi xoolal jàmbaar yi ah ñi yàlla leen yàlla fay xoolal gars yi ni ñuy duggee ci ko di yuuxu nit ñi pour ñu génn ci koñ yi <laughs> foo nii daje kilifa yi ñëw leen jël ñëw jël. joxal ñi. ak les sëñ bi leen joxe. ñëw jël ñëw leen jox gone mag la ñuy jox. gi ni ak gars yi ni def nii ak mobilisation bi ni ñu def ba ñëw fekk leen seen dëkk bi loo ciy yëg. Ah, ah, waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñii daal ay ndaw yoo xam ne danoo dajaloo di toog di dajale seenu xaalis di wër sancaan di leen ko jox euh, keroog ndindi la woon barki démb tindoo di tey lañ ñëw fii ci taw Tawfekh dama bëgg daal ngeen ñaanal leen ci barkeb Cheikhul Khadim luñ mën ren luñ mën luñ mën ren su déwénee yàlla nañ mën lu ko waaw moo tax daal ñu bëgg ngeen ñaanal te yàlla tax ak jëm Sëriñ Tuubaa waaw waaw mag daal yàgg naa yàlla moo tax ñu sàkku seen ñaan jërëjëf kon jërëjëf neen oto bi waaw ñoo tasaaroo tey fan yëpp ndindi lan doon dem ak euh, euh, tindo di tey nag danoo ñëw tawféex waaw ñoo ngi nii tey tawféex waaw gisoo oto yi fu ne la nit ñi génn di ñëw di jël si glace ak tey àjjuma ji ni mu tànge waaw gars yi jaayante volontaire dajale glace ku bare bare bare bare bare oto yëpp ñu duy ko ba mu fees dell di ko joxe addi Sëñ Tuubaa waaw sëñ Bada Diop Pastef fa nga ne ci liggéey bi waaw góoru soxna Cissé mu ngi noonu ci liggéey bi gis ngeen ko waaw Seydina Aliou jàmbaar yaa ngi nii jàmbaar yaa ngi nii soldat saa ngi nii ñi nga xamante ni liggéey Sëñ Tuubaa la ñuy def boole wuñ ci dara ki wax jàmbaar yaa ngi nii soldat yi Sëñ Tuubaa yaa ngi nii xoolal Sëñ Daam Jóob Daniel Gallas yàlla leen wa rahmatullahi wa barakaatuhu tàmbaleeti liggéey bi di ci sant yàlla baax a baax a baax a baax a baax a baax bi ñu may wér ak fekke tey ñu ngi joxe nii gisoo oto yaa ngi nii am na beneen bu nekk ci ginnaaw munoo dikk ba taw féex ñu tasaaroo ci mbedd yi waaw sëñ Bada Diop Pastef a ngoog ñu ngi nii ci liggéey bi ñu ngi nii ci liggéey bi ñu ngi nii ci liggéey bi ata ñu ngi nii ci liggéey bi jàmbaar yaa ngi nii ñëw leen ñëwal ñëwal jàmbaar yaa ngi nii waaw Baye ñu ngi siyaare baax baax baax na xewal yaa am jàmm amaana bi ñu tàmbalee kii ba tey amaana yow la taxawalagum ci mag ngay góor amaana am na jigéen ñoo xamante ne introsé nañ leen waaw dan lay laaj. lii nii ban yëg-yëg la ak euh, ban tawféex ngeen ci am. ci lii nii daal moom mooy yëg-yëg moom lenn sëñ uh-huh. moom moom gis ko. Mm-hmm. sëñ Tuubaa moom tànk kanam laay laay mu tànk waaw li ñii nag danoo jar a ñaanal ndax ay ndaw yoo xamante ne danoo ne ca marché ba toog ba ci xalaat ni koor gi tàng na te yéen ñii pour ngeen jug dem di wuti galaas day métti ñuy nan dajaloo jël seen xaalis jënd bu yàgg ndax sëñ Tuubaa bu yàgg yàgg. waaw waaw waaw boole leen nag sëñ Fallou. waaw sëñ sëñ Fallou jooju nga wax damaa bëgg nga ñaanalal ma ci soxna maam Matim sëñ Fallou yàlla guddalu fanam te yokk ko loolu loolu baax a baax a baax moom la sëñ Tuubaa man ñuy wax yow sëñ yaa ngi nii daal jeexal ngeen waaw ñii de neen jeexal nañ moom waaw góor sëñ Pape yow liggéey bi nii soo ci nekkee pas-pas bi ak yéene ji. man bi man bi waaw bu ñëwee daa parce que maanaam dafa kiimaan daal uh-huh. a baax. Mm-hmm. ñu ngi ñaan daal nga ñaanal gars yi nga xamante ni ñoo ci ne ba di la yokk force a frappe ba tax nga looy looy liggéey rek mu gën a yokk nga ñaanal leen ci barke Sëñ Tuubaa. gaa yi ngi nii ci liggéey bi yi ah, ngi liggéey bi daw naw yaram lii daw naw yaram daw naw yaram lii daw naw yaram lee daw na yaram lii daw na yaram waaw taw feex taw kon bi ñëwee fii dañ fee fekk yaayu mbootaay gi mu ñuy ñaanal Serigne Touba Mbacke yal na seenub liggéey yokk amiin barke Serigne Touba yegg yal na ngeen fi yegg amiin barke Serigne Touba waaw kii wali dañ koy dégandiw li ñuy joxe duñ ci am saa tos la lay naab mm-hmm. toog fii man ak maire bi su la ñuy toog ba ñu noot dafa jafe duñ gis kenn mm-hmm. maa ngi ñaan ci doole Serigne Touba fu ngeen bëgg a yegg yal na ngeen fi yegg amiin barke Serigne Touba amiin amiin amiin amiin amiin barke Serigne Touba amiin barke Serigne Touba amiin amiin amiin barke Serigne Fallou amiin kon euh, bàjjenu gox lañ jot noonu mu kontaan lool di ñu ñaanal tawféex ak yokkute bàjjenu gox waaw ndax lii daa tombeek mu ne fi kon ñu ngi ñaan lii mooy liggéey bi daal ubbi nañ buntu yëpp ubbi nañ buntu yëpp jëm ca cëppal ga déggal ñaan gi ñu ngi naan ñu ngi naan yàlla seen eh. xol sedde ni galaas gi sedde barke Cheikhul Khadim ah, mag ñee ndaw ñee ñëpp ñu ngi ñaan loolu ah, ñu ngi ñaan loolu jërëjëf jërëjëf maam booy jërëjëf maam booy na yàlla ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan ñu ngi ñaanal ci biir ñaan gi man maa ngi ciy ñaanal Serigne Mountakha yàlla yàggal ko fi lool. yàlla yàggal ko fi lool wéral ko lool barki Cheikhul Khadim di ñaanal sëñ Ibra Khoudia Mbacke yàlla yàggal ko fi lool te wér ak sama wasila suñu sëñ sëñ Abibu Mbacke ñu leen ñaanal bu baax a baax a baax ak mbooleemu jullit di ñaanal nag jigéen ju man góor soxna Mamati Mbacke Fallilu yàlla may ko fanu gudd lool wa ànd ak wér-gu-yaram barke Cheikhul Khadim liggéey bi am na solo lool xoolal jëwriñ mooy jiitu kon corne ni xaar leen oto glace yaa ngi ñëw suñ taxawee di joxe nii lay def xool xool suñ daam jóg oh, xoolal jàmbaar yi. dangoo taw aw taw taw féex la benn oto nga amoon tey dem nga ba am lii lépp ci oto waaw kon nag loolu taw féex la bu baax a baax di ñaan yàlla mu gën a yokk waaw am na ñoo xam dañ koo dégg rek ni daan ci ñëw jaayante gisoo oto yaa ngi nii yii yëpp a sëf glace fi ne ak bële ca kaw na leen ngeen seen. liggéeyal sëñ waa daal amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ci koñ bi daal gars yi dañ fee tasaaroo tey danoo tasaaroo daal ajuma daal gars yi danoo yëg mettit gi moo tax ñoom ñëpp ñëpp kenn ku ne li nga doon def nga bàyyi ko jékki jaayante